ginnaaw téeméeri millions yi nga xam ne joxe nañ ko ci bi ñuy teg xeer université bu Touba bi ñoom waa Touba ca kanam sasowaat nañ benn batiment boo xam ne dañ ko fas yéene liggéey ba mu àgg ci université bi muy benn R plus 3 ñu xayma ko ci 800 millions de francs CFA di batiment bi nga xamante ni fa la ñuy jàngee majalis loole nag door nañu liggéey bi ci ginnaaw études yoo xam ne amal nañ ko ñu jël chantier bi jébbal ko benn entreprise boo xamante ni xam-xamam màcc na ci wàllu wi ànd ko kuréel ingénieur yi nga xam ne ñoo nekk ci Touba ca kanam ci njiital Serigne Aliou Dieng ak Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Modou sa Dieng ñu ànd di taxawu mboolem liggéey yi nga xamante ni dafa jëm ci wàllu wi te Touba ca kanam daal di koy engagé wu. ñu njëkk def prise de contact ak entrepreneur bi ak équipe am donc euh, fay moom mooy directeur technique entreprise bi. présenté nañu aussi Ousmane Gueye mooy conducteur des travaux ak euh, Omar mbay comme chef de chantier donc ñoom ñi nga xam ne ñu ngi nekk en permanence ci fii ci ci biir liggéey bi euh, wax nañ tamit si mobilisation am donc daanaka euh, ingénieur bi sax chef projet bi confirmé na ko lu ci ëpp ci li mu waroon mobiliser si côté matériel mobiliser na ko personnel bi tamit comme c'est évolutif li ci li nga xam ne moo am solo par rapport ak fii mu toll nii yaakaar naa mobiliser na ko Euh, xëy na foofu li ma fay wax rek côté matériel bi dafa concerné benn point boo xam ni si contrat bi lu ñu ci war a dolli la te loolu moom je pense que lu jaadu la mooy déclaration sur l'honneur parce que lépp lu ngeen wax ne am ngeen di ngeen ko indi soxlawul ñu siy teg suñu bët mais tamit bëgg nañ ay garantie donc déclaration sur honneur dinañ def benn lettre déclaration sur honneur boo xam ne su ñu ko mënee signaler pour que dina mën a dinañu mën a dimbale par rapport ak état bi jëm pour bu amee manquement par rapport ak loolu loolu tam ñu comprendre si aussi euh, le client jotoon naa wax sax Khadim Diouf tamit par rapport a contrat bi que ñu yóbbu ko impôt domaine pour enregistrer ko loolu tamit def ñu dimbale parce que taayu contrat bi bokkul ak ñu doon am par rapport ak poste santé euh, loolu tax xam naa ci dinañ ci kii bon euh, beneen bi ko bi may kii ci côté boobu mooy euh, convention cadre bi envoyé woon nañu ko xëy na day laaj rek fi mu toll nii dans un bref délai les partie ku si nekk xool ko xool li nga xamante ni moom lañ ci kii ñu ñu defar ñu ñu signé ko. delloo ko le maître d'œuvre parce que loolu lu ñu laaj la parce que liggéey bi dañ ko seq ak yeneen ante yoo xam ne ñoo nekk si biir université bi euh, li nga xam ne moom moo jëm maintenant li ci li ci ëpp parce que ay recommandation la benn bi si bi si njëkk bi ma njëkk a noté mooy ñu respecter les cahiers des clauses techniques particulières te loolu yaakaar naa am ngeen ko lu ñuy lire en permanence surtout yow la directeur technique en permanence parce que lépp loo xam ne liggéey bi laaj la actuellement yéen ñi nekk sur le terrain yéen ci en permanence pour que ñu mën a am loolu bis bu ñu defee benn euh, euh, reproche Touba ci kanam si yéen lañ koy jaaral te bu boobaa tamit yaakaar naa euh, ñun ñëpp ñoo koy bokkaat waaye dañ ñoo ko ñooy seq responsabilité bi donc ci loolu dafa laaj ay échange yu nga xam ne échange yu acté la foog déjà yéen seen interlocuteur mooy le chef de projet moo fi teewal Touba ci kanam lépp lu ngeen di def loo xam ne lu ngeen di adressé maître d'œuvre bi la foog moom mu yëg ko te tamit mu nekk loo xam ne lu ñuy lu ñuy bind la ba pare am ay traces donc su jëree lu ñu bind signé bu fekkee mail la tamit ñun bu ñu jugee ci deuxième partie réunion bi danañ établir benn liste bu nga xam ne moom mooy équipe de gestion de projet bi danañ leen communiquer ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk en copie ci mail yi ngeen def yëpp pour que ñëpp nekk moom au même niveau d'information. xam ne ëllëg ak si biir comme projet bi luy durer la lu ñu négliger tey rek bu ñu demee ba kanam dañuy réer ci fan lañ bañ tollee fii lan lañ waroon def ak ak loolu donc loolu tamit foog ñu veiller ci. Euh, beneen point bi mooy document de chantier loolu tamit ñu confectionné la xam naa fii bi. foog bu ñu ñëw ñu indaale ay solution par rapport ak loolu. modèle de PV bi xam naa loolu nañ ko confectionné ñun suñu biir mais danañ ko partagé ak yéen PV bi euh, ko waxee aussi les ñu jox leen liste yi nga xam ne ñoo ngeen mettre en en kii euh, en copie. journal de chantier bi aussi am na yenn information yoo xam ne chaque jour da ngeen ko war a jox chef de projet bi pour que mu xam par rapport ak présence personnelle bi matériel bi s'il y a des ak yooyu. chantier na ñàkk ay ay comme ni nga ko terme boobu. gàllankoor mënul ñàkk mais tamit ñun de loolu mooy euh, euh, rôle réunion yi ñuy def nii pour que di noter gàllankoor yi di xam saafara yi yi ciy indi euh, planning bi aussi ñëpp wax nañ si mais daf ko daf souligner ñaari ñaari ñaari aspect ci planning mooy planning d'exécution bi loolu moom yéen la war laaj naa sànq sax administrateur bi mu wax ma ban dat ngeen jot avant de bi mu ne ma la 4 juillet ngeen ko jot donc la 4 juillet ak tey boo ci dindee. délai bi nga xam ne moom mooy pour ngeen recou euh, recouvrer seen seen xaalis 48 heures donc disons que actuellement yéen a ngi si 14 jours ngeen defagum te si bi 14 jours yaakaaruma ne am na fi ay retard parce que installé nañ fi chantier bi am na fi euh, mobilisation yi ak yenn aspects yu bëri yoo xam ne gis nañ ko sur le terrain sànq donc vraiment ñu veiller tout le temps si délai mais tamit jot na actuellement ngeen proposé ñu un plan planning concret concret boo xam ne bu ñuy am la taf ko planning na nekkul lu figé donc nekkul lu figé dañ koy mettre à jour. selon situation yi ñuy jànkoonteel si kanam donc au fur bu ñu demee ba gis ne planning bi kii yatul ñu jéem a xool nan lañ koy adapté par rapport ak les circonstances du moment euh, planning d' approvisionnement bi aussi lu ñuy liggéey la ensemble pour l' instant am na lu ñu jot approvisionné donc foog tamit ñu xam par rapport ak loolu ak fi ngeen toll très prochainement état bi ñu jëm lan ngeen soxla pour que ñu teel koo def avant ñu ciy yegg parce que on aura beau euh, reprocher les procédures ak yooyu mais tam bu ñu teelee à temps si li ñu war a def. du ñu am manquement yi demee noonu li nga xam ne da nga ko soxla dans un mois boo ko commandé léegi boo ko waxee waxee léegi quel que soit procédure lu mu gudd di nga si jot à temps donc loolu mooy moo jëm si ñaari planning yi euh, tamit euh, si euh, document de chantier am na bu ma fàtte mooy bon pour yi loolu tamit foog ñu veiller si donc am na étape yu nga xamante ni bon pour collage ak tamit réception pré-ferrage yi foog ñu am ay documents yoo xamante ni documents yu ñuy yu ñuy par convention yi ñuy retenir fu ñu ci toll ngeen fexe ba chef de projet bi validé leen moom sax waxoon naa déjà moom foog mu am benn cachet boo xam ne lépp lu muy def donc ñu koy acté loolu tamit lu ci am solo la ci liggéey bi euh, sëñ Cheikh wax na ko tamit ci wàllu coffrage bi loolu tamit dañ si insisté bu baax a baax parce que setaayu liggéey bi fi mu toll nii ku fa am ñaari bâtiment si setaay bi nga gën a ngay njëkk apprécier donc setaay bi moom loolu moom dañ ci euh, insister bu baax a baax surtout jéeme ñu ngi la koy ñaan pour que chef coffreur bi moom kooku comme chef de bi la mel ku a nekk en permanence la te tamit ñuy réceptionner le coffrage avant ñuy couler pour bañ ñu couler ba pare mu am ay kii yu déborde ñu koy tojaat ak yooyu loolu yëpp mën nañ ko éviter ñu koy réceptionner euh, li mu wax tamit ci loo technique yi loolu dafa laaj coordination euh, par rapport ak euh, parce que ñoom defuñu loo technique c'est vrai gros œuvre la ñuy def mais yu mel ni plomberie ak électricité déjà am ngeen plan yi mais fu ngeen ci toll aussi ngeen teel a aviser à temps ñu def coordination bi ak bu dee éventuellement Touba Ca Kanam dafa war a faire intervenir ñeneen ñoo xam ne ñoo koy def ngeen mën ci liggéey à temps pour que mu bañ leen aussi indil ay ay ay ay tardement quoi euh, xëj na ñaari yu mujj yi mooy périodicité réunion yi moom xëj na nag duñu du ñu mën a am réunion yoo xamante ni ñëpp danañ teew mais réunion de chantier moom yaakaar naa mun na nekk hebdomadaire boobu moom comme équipe d'ingénieurs dañuy ñëw tous les dimanches ñu waxtaan nañ suñu biir équipe ingénieur dañuy déployer ñoo xamante ni uniquement pour projet université bi lañ moo tax ñooñu mën nañ chaque dimanche bu doon benn réunion 15 minutes la sax ñu def ko def visite de chantier def réunion donc loolu noonu bu ñu mënoon nag chaque dimanche au moins ñu fekk la fi parce que dama koy faral di souligner su chantier poste santé yi chaque fois bu ñu demee entrepreneur bi dañ ko fay fekk donte moom sax mooy entrepreneur mais moom mooy aussi le répondant technique donc yow entrepreneur moom mën nga sax bañ a gis waaye bu ñuy am le directeur technique ci chantier bi di ko gis chaque dimanche dana permettre yenn stage permanent yi ñu koy def maintenant réunion bi nga xam ne moom mooy réunir ñëpp nag duñ ko tënk nii léegi mais ñu bàyyi ci xel que ne faw ñu xam euh, tous les quinze jours lay nekk wala tous les un mois bu fekkente ne si kilifteefu euh, sëñ Cheikh su ko jot a maye bu dee par un mois moo gën wala par quinze jours après dinañ ci waxtaan ñu def benn proposition te tam mu ngi nekk tamit sur le faux weekend dimanche wala samedi pour ko ñëpp mën a daje surtout ñu am aussi disponibilité salle bi ak yu demee noonu euh, yaakaar naa su fekkee ne fàtte nga Ndiaga Seck wax na fii ci wàllu euh, écrasement yi donc loolu tamit contre expertise rek lay doon parce que am nañ benn ingénieur géotechnique boo xam ne laboratoire bi chaque fois bu ñu jëlee prélèvement ñu date ko bu ñu ko yóbbee bu résultat yi génn fekk résultat yi génn comme tamit ni gars yi di wax lëy nuy dafa baax si liggéey bu ñuy defee erreur xëy na peut ñu la doon échappé danañu dimbali ñun ñëpp si biir liggéey bi voilà euh, amugul benn reproche bu ñuy def daal si entrepreneur lépp ay soññante rek si biir si si si kii euh, beneen aspect bi tamit mooy li càmm wax sànq moo jëm si wàllu alternative par rapport ak ndox bi parce que ku ne xam na ndox moom ku ko amul doo commencé donc su problème bi naan insisté jéemee ñu jéem a xool ba xam dañuy wut pare bassin bi jënd ay bërigo approvisionné ko le temps que solution bi di kii. loolu tamit lu ñu lu ñu lu ñuy bàyyi xel la. lors de la prochaine réunion. Mm. comme phase mobilisation lañ toll. Mm. le planning des travaux soumettre ko ñu examiner xool agencement tâches mm. euh, xool ba xam suñ ko valider léegi loolu par semaine jarul muy nekk ay même soo defee bar chart loolu pour visuel rek la mais en réalité mois bi lii ngay def nommément nga def les tâches fondation nangam nangam nangam semaine bi aussi nga jël. comme quatre semaine ngay am dans le mois semaine bu ne nga jël génnee mu nekk benn fiche boo xam ne danga koy mën a tig di suivre def nga lii def nga lii lii lu tax defoo ko defoo ko ok nooy def ba rattrapé ko nga ne boo dinaa def nii nàngam loolu mooy objet wu pour ñu mën a suñ joxee délai boobu ñu tenir ko mais bu ñu demee nii rek xam nga chantier da ngay dem ba mu ba mu yilif la moo lay entraîner dootoo sax am su nit ku jógewul ci bitti ñëw xoolal la da ngay dem ba dootoo yow gis bu ñu la waxee da nga affaire baa ngi dox. camion yi romb ak ngay couler donc il faut ñu méthodique ci loolu su amee aussi la gestion des non conformités non conformité bu ñu conseil parce que y a deux niveaux de contrôle damay jégglu ah ci liñ tardé euh, mais dafa am deux niveaux de contrôle même trois niveau contrôle interne bi yéen yéen a ko yor yéen a war a xoolal seen bopp comme da ngeen am jekku liggéey bi ba tax ngeen laaj ko kon jekku ngeen ko lu war ak lu warul xamal ngeen ko seen bopp ñu toftale leen ingénieur bii fi te nekkal Touba ci kanam mu topp seen ginnaaw di attention fii sa sa sa kii bi sa lii nangam sa lii nangam ah wax nga dëgg nga corrigé contrôle externe bi nag di bureau de contrôle bi sëriñ bi amal boppam donc on a trois niveaux de contrôle léegi dañu war a am fii un journal de chantier mooy lii sëriñ ba la doon wax chaque fois contrôle bi muy moom mii wax na waxtaan nañ ci ak moom. muy le contrôle bi fi sëñ bi teg observation bu ñu am ci journal boobu lañ koy note yéen ñëpp ngeen signé ko yow ki fi nekkal entreprise bi signé loolu mooy ne gis naa lii d'accord am na nag yoo xam ne moom non conformité yoo xam ne dañuy taxaw moom point d'arrêt la moom boo ko réglé wul mënoo dem sa coffrage conformul mënoo dem sa ferraillage conformul mënoo dem sa dosage conformul da seetiwaatal sa formulation yii buñ ci juboo chantier warta am werante warta am xuloo warta am dara bu fekkee kenn ku ne xam nga li la fi indi te entreprise bi de bonne fois kenn forcé wu la yaa wax ne boo ma joxee mille francs ma liggéey la lii kon yaa xayti kii liggéeylu defal ko li mu bëgg ndax moom jox na la ko wax na la ko kon xuloo warta am foofu su xuloo amee rek am na ko wàcc yoonam te ñun ñi fi ne maanaam lii sëñ bi bëgg mu baax moo ñu fi bàyyi. bu buñ ko doon liggéeyal Jean André sax waxi noppi rawatina nag buñ koy <laughs> liggéeyal sëriñ bi kon buñ déggoo ci foofu rek réeroo du am daal suñ xoolee tam effectif yi parce que on a la qualité mais on a les effectifs les ressources effectif bi fi ne dinañ ko pointé xool ba xam par rapport ak programme yi ñuy teg effectif ressources humaines yi ñu wax mën na koo liggéey troisième niveau yi mooy moyen matériel yi est-ce que lii ñu wax moyen matériel yi mata na ko lu ci matewul itam dinañ la ne sëñ bi yokkal yokkal sa maçon yi yokkal sa ferrailleur yi yokkal yokkal ci loo xam ne soo ko defee li nga fi naroon a passé doo ko fi passé kon gain lay doon au final ci yow donc yii rek la buñ ko defee dinañ ci mën a génn incha allah. soxla nañ xëy na ku leen ci ëpp xarañ moo tax ñu jàppoon ne suñu apport na ci am solo eh, boobu nag mu doon eh, eh, jamono joo xam ne dara taxawagul. donc plan archi yi yembagul euh, étude bi nga xam ne war soon na ko def ci plan archi yi ak plan yi ci des yëpp muy plan béton armé yeeg plan yeneen loolu technique yi ak document yi nga xam ne moo koy accompagner les pièces écrites yooyu yëpp xëy na exploité woon ko doon na xaw a diis ci waa Touba kanam ci la ñu sollicité woon ñu teg mbooloo moo xam ne xëy na ñoo koy càmbar jaarale ko ci anam yi mu jaar yi mu war a jaar yëpp ba agsi ci fi nga xam ne nii moom la ñu jublu muy euh, taxawal ko liggéey ko donc ma ci nag euh, sant bu baax ndax képp kuñ ne kaay ñu ànd nga liggéeyal Serigne Touba kooku danga ko war a sant de beral aussi ak yenn cant mu yéen ñi nga xam ne yéen ay kuréelu ingénieurs yi wax dëgg yàlla def ngeen ci pës ci njiitaayu sëñ Alioune Dieng ak Daouda ak ñi ci nekk ñëpp ma gis ci Pastef boo xam ne wax dëgg yàlla rafetlu naa ko lool ndax gis naa ni ngeen di taxawee ak fulla ji ngeen koy jox ak àqam ji ngeen koy jox ak it euh, lu leen ci dara ci seen jot kon loolu defe naa barab bi war nañ ko cee wax ñurum ñu xam ne liñ doon yaakaar ci yéen ngir jëmi Sëriñ Tuubaa def ngeen ci lu féete kaw seen jot ma jàpp nag ne bu loolu weesoo yeneen étape yi nga xam ne mooy ñëw gannaaw bi ñu xoolee documents yi càmbar ko euh, ba taxawal lépp ba tànn ki nga xam ne xëy na bu ñu sukkandikoo ci yëm ñu jox ci ay kayit ak li mu wax jàpp nañ ne war naa man def liggéey bi ci anam gi ñu ko bëggee ci délai bi ñu ko bëgg léegi nag li ci des den lenn lu ànd ak moom ànd ak moom gi nag def naa li ci ëpp solo gannaaw kuréelu ingénieur yi moom taxawoon taxawoon na yàgg naa ak accompagner Touba ci kanam li ci des fi ne rek mooy comme ni ñu ko waxee ci réunion bi fexe ba lenn loo xam ne day indi retard wala day indi gàllankoor mu bañ a jóge ci Touba ci kanam ndax Euh, bu ma seetloo li ma xamaguñ ci Touba ca kanam ak ak intervention yi nga xam ne waa Touba ca kanam ñu ngi koy def am nañ ay kuréel yoo xam ne li nga xam ne mooy war a accompagner entreprise bi yëpp am nañ kuréel yoo xam ne ñoo koy saytu am na étude et contrôle étude et contrôle boobu li mu war a mën a def léegi nii wuute nag la mënoon def parce que xëy na yenn compétence yi amu fa woon léegi nag bu weesoo approvisionnement am na fi ñu am na defe naa seen commission achat am commission approvisionnement ñun suñu fexee nag defe naa ba xool leen documents yi ba ne documents yi baax na wares na ko mu liggéey ci anam bi entreprise bi moo ko war a mën a liggéey te comme yàlla def na lépp li nga xam ne mooy matériaux yi ah, Touba ca kanam moo ko war a fournir te am na ñoo xam ne ñoo war a féetewoo loolu damay jàpp ne kon li ëpp ci liggéey bi dafa xam naa fi mu ne ci Touba ca kanam la war a aju ndax ñoo war a fexe ba euh, ni ñu ko junjee léegi rek planning d'approvisionnement bi suñu ko mënee di euh, respecté jël seen ay matuwaay di anticiper ci besoin yi nga xam ne moom la entrepreneur bi am ci ni ko sëñ Alioune euh, Dieng waxee léegi it fexe ba saa yi ñu ko waree fay paiement bi bañ a nekk ali ci moom ah man kat dugal naa sama dekkoon décompte ñu ma te comme yàlla dogal na commission finance ngi fi li muy war a joxe mi ngi fi procédures yi yéen a ko xam def naa ñun bu ñu leen joxee yi yëpp li ñu war a joxe kan lañ ko war a joxe ak nan lay toll def naa la lépp nag boobaa bu ñu continuer encadrement technique bi réunion hebdomadaire yi ak réunion. Euh, bimensuel wala xaw euh, ma mensuel bu ñu koy def defe naa la ci ëppoon solo ci liggéey bi mën naa jàpp ne sotti na kon nag dama jàpp ne léegi euh, ñun am na foo xam ne man bokk personnellement yaakaar naa du ma ko sañ maanaam dugg ci waa Touba ca kanam naan leen def leen nii def leen nii def leen nii ñi ngeen war a defee nii moo gën te ngeen am nu ngeen doon doxee leen man rek mooy ñun kat lii ñu bëgg ak lii ñu leen di jàppale bu ñu ko doxee nii moo gën yéen nag yéenay xeet kenn ku ne yaa ni ko wolof di léebe kenn ku ne yaa xam nooy toje sa bopp janax yéenay xam mu ngeen koy saytoo ba ni ñu ko bëgg ñu ama ko ni kon bokk ci gàttal euh, maa ngi santaat bu baax ñi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey yëpp tey ñaan yàlla mi nga xam ne mooy manal ku man ku ne yàlla ñu manal te nangul ñu te mu àgg dem fu féete kaw suñu njort te euh, moom ni ma koy faral di seetloo comme ni nga ko waxee rek daanaka liggéey entreprise moom dafa xaw a bari ay aléa kon nag day laaj euh, saytu gu mat sëkk ci ki nga xam ne teg suñu bët bañ a ko mukk ci koy liggéey liggéey bi Touba ca kanam it ñoom itam ku bëgg mbir dangay def mbir ndax gannaaw lii défilé boo xam ne am na ñu fi nekkal ci site bi bëgg àggalandoo ñoom faaw ñu def loo xam ne xëy na day dëppoo ak projet bi li mu laaj ndax am na yeneen alaya yu ñëw muy nawet bi nawet bi moom nawet sàncowu nawet moom day xaw a xat tuuti te it euh, bâtiment bi du tuutiwul te délai bi ñu bëgg euh, wax dëgg yàlla gàtt na euh, beneen facteur bi nga xam ne contrainte la aussi mooy euh, zone boobu nga xam ne dafa am lu mu lëkkaloo université bi am ñu fi nekk jiitu leen xam naa rattraper retard bi dina jafe waaye au moins fexe ba nga xamee ni ñoom bu ñu réceptionné it dana fekk lu néew néew xëy na gros œuvre pare loolu def naa war na mën nekk jërë ngeen jëf wajalilaayi baabaat misras mi abi jaayi xayri ma nabaat